li nga xam nekk moo di la sortie bu Ousmane Diagne doon doon taxawal li nga xam nekk moo pôle judiciaire financier donc nag taxaw na si officiel dinañ daal di commencé nag toppe gi ak convocation yi nga xam itam dañ ko daal di xaar ni lu yàgg du dara incha nga xam itam ñoom ñoo daal di nekkoon si nguur ki nga xam nekk moo Macky Sall loolu war a sax lu daal di jëm si li nga xam nekk moo di génn beeg ñëw bi ñu daal di koy li nga xam nekk moo di arrêté gum bu si mujj di ki nga xam nekk moo di Manar Sall foofu si aéroport international Blaise Diagne dañ daal ñëw itam si ki nga xam que moo euh, la sortie de euh, Ahmed Khalifa Niass mu daal def euh, benn ko polémique exactement sur la toile jëmale ni taxawal na digënté Ousmane Sonko ak ki nga xam que modi di Adji Sarr loolu itam dañ ko daal di yaatu si mu gëna a yaatoo dañ daal dikk itam sol actualité ba tay tolay humi mi mu gëna a ak lu daal di ñël si gàmmu gi ak kàddu yi nga xam itam Moustapha Sy yëkki ko di daal di dànkaaf ki nga xam que modi Ousmane Sonko dina daal di bokk si ay ponk entre autres yi nga

Euh, le PM ki na xam ne que moo di Ousmane Sonko nak na ko daal di jàngate exactement kàddu yi nga xam ne itam moom la Ahmed Khalifa Niass daal di yëkki jëmale ko si euh, ku toll ni Ousmane Sonko concrètement waaw euh, Ahmed Khalifa Niass Adji Sarr seen taalibe la loolu moom kenn werante woo ko Ousmane Sonko demoon na këram Ahmed ne ko sama doom nga te Ousmane waxul dara kon nag doom boo jëlee sa taalibe may ko sa doom loolu kay dara ne si waaw ndax ba mu naan ko sama doom nga te du ma nangu kenn laal la Sonko ngi toog takk masque bi ñëpp gisoon nañ ko nangu woon na ko kee tamit seen taalibe la su taxawee ne dama leen <laughs> dama leen di maye loolu kay du événement loolu xëy na mën na am daal day kaf soit day deugal yoy dal du événement soxla wul actualité hmm. bu am alors mec euh, mec le fait que ñi di ci waxat exactement ak nit ñi ñoo ñak lu wax rek euh, sorti bu justement mais est-ce que euh, tol ni guddu yonent bi wona nekati ay cadeau ci aji sar exactement ah guddu yonent bi kay sañoo ci wax diw dina ko may diw ñaata sey lañuy tag ci guddu gam lool kay du ci dat ça n'a rien à voir ak ak fi ñu tolone ak ñi ci mort yi étant d'autres étant d'autres ah, ah wa lool da ci dara ñi ñi dé ñom ñoo dem foyé sen bakan rek bakkan dafa seer bakkan kenn waru koo fooye am na loo xam ne fooye sa bakkan la sëñ bi bànneexu jàmbur du ma ci tayle bakkan non non non rek <laughs> mais Abdou nit ñi da ko gën a comme genre roubé quoi. Hmm. wala kon sa euh, reste sorti que ni jomay il rap il l'apprécie mais pas justement ki nga xamné que moo Ousmane Sonko euh le pourquoi Sonko dérange justement euh ñoñu ñom amé xefe et constat nga japp ni. non xam nga Sonko ci bopam moom ku mu déranger rek mo la tooñ Sonko ak Ahmed Khalifa Niass histoire bu guddul amul lu ko waxul fii. amul lu ko Sonko waxul fii. Hmm. <laughs> Ahmed tamit wax wax la rek Sonko li waxoon Ahmed a gën a garaaw di lam ko waxoon ne loolu lañ ko def ca Niger moo gën a garaaw te Ahmed a ko mag foofu loolu du lii du événement ñoom ñaaraat seen diggante man daanaka dama ci xaw a dama ci xaw a tari sóoratu maandu. Sonko ak Adji seen diggante. Sonko ak Adji seen jeex na bañante ñoom ñaar bañante wuñ. Sonko ñaata hôpital di ci réew mi mu ne aji saar laa wóolu sama ndigg lii kooku ba ñu ko tamit. Sud Bouti. dañ waxante dëgg. Sud Bouti. ñaata médecin fi nekk moom mu am feebaru neer wóolu ci xale bi kon bu ko bu ko am benn ñu may la ko. non loolu yéen la yéen la war a naq. non nday xadi la wóolu. waaw léegi nday xadi bu noonu nday xadi mooy borom kër gi mais aji mooy mooy mooy fajkat bi mooy médecin bi moom mooy faj nday xadi moom da ngay ñëw rek ubbi. kenizi comme Rose Wardini xam mo ubi kenizi ter kenizi, mm, mm. ki kenizi la mo mm. ubi cabinet. mais Rose du masse ken? dafa jël ay masseurs masse masseurs professionnels ñu koy defal liguey bi ndax xadi nak moo mom keur gi donte jang na ba am ay diplôme am ba am agrément ministère de la santé permettre ko mu ubi mu euh salon bi euh, ki bi num mu cabinet bi. legui nak jël aji aji tamit jang na ba am ay diplôme ba ah am def na ba am na bac plus cinq ah waaw médecin kay loolu la day moo tax nag day xadi recruter ko ci kër gi pour pour a faj cinq ah pour ki nekk kinésite faaw nga am bac plus cinq de Ousmane xam na loolu minimum ak yenn formation yi mu laaj moom xam na ko nee na présenté na ko këyit gi ba gis ko ñu faj ko kay ko ku ku la wóolu sa wér gi yaram daal wax dëgg yàlla xanaa sëyeeg moom bu la bëggee wàññiwu dara te mbëggeel nag seen diggante moom ñàkku ci moom kon Ahmed Ahmed li mu wax tamit dara newu ci nañ bàyyi noonu rek. Hmm. mais quand même mais quand jamono ji pour Adji Sarr ñëwaat Sénégal concrètement euh, yow mii jege nga ko Abdou ban information nga si am euh, dafa ragal wala kon lu xew concrètement ñi sàkku pour mu ñëw. pour mu ñëwaat. Sonko de bokku ci. dafa daw. noonu non daw dama ne Sonko bokkul ci ñi bëgg mu ñëwaat. mais Adji dafa daw. du muy daw daw fa. jaay aéroport nii tukki dem laaj Sonko dafa daw wala sonk ngeen di laaj Aziz lu ko génne dëkk bi bu leen ma ko laaj bu leen ko laaj kenn laaj leen ko Sonko ak Bassirou Diomaye Faye te ñu te waaw waaw te ngeen bàyyi di di coqutaan xelu nit ñi moom lañ ko war a laaj. mais nu ko koy laaje non waaw mooy laaj gi rek laaj laaj. fale ga moom mu sekk ak yéen ay laaj ak i tontu journaliste yi di ko laaj. lu ko génn Sénégal laaj leen ko ko. donc dañ ko guéné Sénégal exactement non non da ngeen koy laaj ko xam nga c'est une longue histoire ma jambal néna mo moko duggal ci autom yobbu ko aéroport mu génn xam nga la leer na ma jambal néna tamit ngeen laaj ko lan la aji sar génn lutax mu génn xam nga leer na mbir mi gaay wax nañ leen ko ba paré xam ngeen da ngeen di foyé sen xel yi voilà motax man lay ñi bëgg ñu ñëwaat xam ni son ko méré na leen alors mi exactement par rapport à euh, justement euh, Ahmed mettre Niass kàddu yi nga xam ni itam ko euh, foofu si doon ak li nga xam que moo Kaolack à l'occasion justement de ce gamou modi japonais que jàpp ni nag dagal na li nga xam ne mooy diggante Adji Sarr ak ki que justement Ousmane Sonko mu nekk loo xam tam itam ni am na ñu di attaqué à dans sans que ni jour gàmm gi waruñoo mën a bàyyi ñu di tenir cadre yu nu mel si bërëb boobu si li nga xam ne mooy Kaolack exactement alors ñu daal di dit itam si elle elle a du côté de la régie. Euh,